mooy maqaama bu fukkeel ci maqaamaat yi comme niñ xamee fukkeel ak benn lay wax comme niñ xamee maqaama benneel suhudiya lay doon ay waade ah dañoo rob ak ab néew ak ab néew ba xàggal fañ doon robee genn góor dal def xàgg si ba ca dooma ja bañ robee mu dal defa waade waade yu ñoom te cadwaade ba nag mu yëkkati loxo bi loxo bi ñu ngi takk ay jang-jang xëy na day wane ne moom dafa accidenté bëgg na ndimbal te fekk pexee naxe rekk la de waaye daara jotu ko waaw loolu mooy maqaama bi rek dégg mu ne xaddasa waxtaan na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam qaal mu ne anastu yëgoon naa min qalbi ci sama xol alxasaawata wow dama yëgoon wawa xol nit su fekkee xam ne lum daan bañ ndig ragal yàlla su ko bañatul rek day xam ne ragal yàlla wàññeeku na waaw xam ne lum daan góorgóorlu ndig ragal faat faatal ko diggante moog yàlla su koy sàgganee rek mën naa am ci ragal yàlla gu wàññeeku la léegi-léeg nag nga gis nit de def dara ba ca kanam mu baxu hmm. fekk na xam-xam tollu ba mu koy def hmm. noona la xam-xam romb hmm. su ko defee muy defee neneen rek subaana soppeeku jëf gu juddoo ci yokku xam-xam loolu waxuñ ko xasawatul xal bi waaye nag soppeeku gu juddoo nag ci wàññeeku wàññeeku yëg looy ragal sa digganteeg yàlla mooy xasawatul xal bi dama yëgoon loolu xina xalaltu waxtu wa mu wàccee saawata saawa fa axastu ma jàpp bil xabari ci hadis almasur bare bu ñu solo fii mu daawaatiha ci garbalee am bi siyaaratil xubur ci nemmeeku bàmmeel yi fekk jàng naa ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne xol bu wow dañ koy saafara de dem ci bàmmeel yi da leen seeti di seeti bàmmeel yi yonent bi mu ne maa leen xaye woon bàmmeel yi da leen ci dem ndax fàttale koo kaay àllaaxira la ma ne naa ca dem falam maa sirtu ba ma mujjee ila mahallatil amwaati jëm ci barabi ñi ba ma demee ca barab bañ xadul ñi dee wa kifaatir rufaati tey ndabal yax yu funox yi kifaat mooy ndab ku ñoo denc ci ba mel dafa mel ni loolu la alam nañ xay laxda kifaatan jàng nañ ko ci alquran ba ma demee foofa raayetu gis naa jaman am mbooloo dama gis mbooloo mu bari ala xabrin ci bàmmeel yox paru ba des na ko gas ma gis ñu ngee gasa bàmmeel wa ma jinoosin ak ku ñu tàddal yu xabaru koog dem na ko bàmmeelal mu am kuñ tëral ci tàdd xam naa moom lañuy ñuy gasal fan xabtu ma daal di jéng ilayhim jëm ci ñoom bi loolu amee ma xenu ca ñoom mutafakkiran daaje xalam fil maali ca delluwaay ba booba nag sama xel dem na ci ëllëg muy dee ak la koy topp mutadakkiran daaji fàttaleku man ñi nga xam ne daraje wéy nañu minal aali ci ñooñ suma xel fàttaleku na ñi fi jiitu woon te day jëlee leen fi falamma alxadoo ba ñu laatalee almayta néew ba wafaata te faat xawlu layta wax layta bañ robee ba pare xam ne fi mu moom lu doon xam xam na asrafa fenk na seyxoon ak a góor min rubawatin ci tund dafa am genn góor gu génnee ci dongo ji mu taxasiran daa ji bokk bi xiraawatin ci xet xet wu xam ne day am bokk man la ñoo xiraawa mu ngi bokk aw doj aw xet waxat la faate mbir moom muuree na wajewoo xar kanamam biri daa yi ci lambaayam dafa muur cëlmaayam nag ci lambaay gi mu xamee wa nakkara te mu fakkal sax sa jëmmam li daa yi ngir jommaleem moom daal ku ko xamoon it nim dikkee moom kenn mënu ko jaa xàmmee fa qaal góor googu daal di wax ne li misli hada fal yaamalil haamiluun ba mu àgg mu li misli hada ngir kem lii fal yaamal nay jëf alhaamiluuna way jëf kum mën doon ak lu mën a nekk bisam bii na koy liggéeyale faddakiroo fàttaleku leen ayyuhal xaafiloon yéen wéy sàggan yi e ku fàtte gis nga luy fàttali nit fàttaleku jot na wasammiroo na ngeen wagu ayyuhal muqassiruuna yéen wéy gàttañ lu yi ku sàggan xam nga ne góorgóorlu fade na war nga bàyyi càggante waxsinu na ngeen rafetal an nazara settantal ayyuhal mutabasiruun yéen way yi ku ci bëgg a liggéeyee xelam na rafetal settantal ci lii mu gis maa ana lan la kum moo leen ñaar ana lu leen jot la yaxsunukum du leen jàqaloo dafnul atrabi suul maas yi dexaan nit ki ngeen bokk lu ne nga xëy benn bi dem suuli ko lu tax loolu du def ci yéen ak njàqare bu ngeen waajalee àllaaxira wala yahulukum te du leen tiital xëy lu turaabi gaawee ko suuf dem ca bàmmeel ya fekk fa bàmmeel boo def kambu te bàmmeel ba ka ko moom mu ngi fi baxoon tabax bu ñëw xiim loolu tax du ngeen ci fàttale koo ëllëg wala yoolukum du leen tiital haylu turaab gaweeku suuf wala tax oona du ngeen faale bi nawaasilil ahdaas ci way wàcce xew-xew yi mbir yi xew du def ci yéen waadu wala tastaay doone te du ngeen xadu li nu ajidaas ngir wàcce bàmmeel yi du ngeen di pareel bàmmeel nen na wala tastaabiroona du ngeen rongoñu li aynin ngir bët tat ma boobu dana mu rongoñu bët bu gis lu jar jooy mu jooy du yënga du leen yëngal wala taxtabiroona du ngeen xalam binaa yéen ci tàgg yus boobu def na ko dégg man cee xamee du ngeen fi def wala tartaxoona du ngeen tiit li ilfin ngir xarit yu xadu boobu def na ko ñàkk xarit bu ngeen gisatul wala tartaxoona du ngeen yëg lakkatu xol li ngir day jëntu too xadu boobu des na ko fas rombog dëj du tax seeni xel yëngatu yu sa dana gunge ahadukum kenn ci yéen naasal mayti tàddag néew wa qalbuhu te xolam tilqaal bayti mu nga fa néeg ba kenn ci yéen day topp bàmmeel day topp néew ñii ko rob yi la muy xalaat mooy bana fi bana fi bana fi waye saadu muy fekke mu na nasi bihi suur kim bokkal askan wa fikro te xalaatam yépp nag fi istixlaasi nasibihi nekk na ci jagoo cëram de suul mbokkam te jamono bi muy suul mu ngi xalaat naan nangam suñ ma ko bàyyee soxla naa ko nag sangam soxla naa ko tabax sangam soxla naa ko oto sangam soxla naa ko mbokkam lay suul waaye lii na lay xalaat weesaalu muy fekkee mu waaraata nasibi suul ki mbokk raskan wa fikro te xelaatam fi istixlaasi nasibi yi nekk na ci jagoo ciram wa yuxalli muy féexal bayna wadoodihi diggante soppeem wadoodihi ak saxam su ma yaxlu topp mu féex bi mismaarihi ci mismaaram foofu kaay la waxoon dihi ak xoodam lu ñuy tëgg la waaw bàyyi mbokkam sax yi da ko lekk xalal ja mbokkam liggéeyee woon mu ñëw di ko noosee moom taalama asitum yàgg na bu ngeen jàqee xalal silaamil xabbati ci xaru pepp mooy liggéey dafa réussir rek nawet gàntu rek ngeen caalitee lu ne watanaasetum ngeen fàtte fàttelu ixtiraamal ahibati xalaku soppe yi waaye ñi ngeen fi nekkatoon ñi dem taxu seen xel da day àllaaxira wastakantum yàgg ngeen a toroxlu linfiraadin usrati ngir jeex ngir gaar ak ñàkk ñàkk gaar rek ngeen di wacc baat wastahantum te ngeen doxadal bin xiraadin usrati ci jeex ak njaboot waaye ñi ngeen xamante doon de dee daal du tax seen xel dañ àllaaxira wadahiktum yàgg na bu ngeen reexee xenda daf ne fa suul néew nekk ci ay sëg de suul néew mel ni ku nekk ci xew de waxtaan de ree loolu ngeen a def wala dayi ka kumte du jàggeen seen ak ree saxaata sëf ni ci waxtu fecci muy ree yoo xam ne jamonoy fecci sax xaw na jaaraku wa tabax tattum ngeen de ba de dox doxi yëg seen bopp xalfal janaa isi ci gannaaw néew yi wala tabax turakum te du jàggeen seen ak ba sax yow ma qabdil jawaïs yi ci bisab jàpp neexal yi topp néew mel ni kuy jëli ngañ may topp néew de dox doxin yëg sa mel ni kuy naan xam nga gañaa demal jëli loolu kenn war na koo def xam nga kenn waru ko def wa tabaxtartum yàgg na yàgg na bu ngeen bëngeere xalfal janaay yi ci gannaaw néew yi wala tabaxturakum te du càggeen seen ak bëngeer yow ma qabdil ci bisab jàpp may waaratum yàgg ngeen a dumóoyu xantaa diidin na waadi bi ci lim limaane ñiy def nutba nutba mooy waxtaane yi nga rafetlu ci mbiri ki dee yooyu da nga déglu ah la ca jar roy nga de ko jéem roy yooyu na seen yoon newut ila i'daadil maadi bi jëm ci xadu ay ndabi ñam ay ndabi lekk jërgee gannaaw diw deen ah na xuwaaree rek wayaag ngeen a du moyu an taharruqi sawaakili walit lakkutug ñu ñàkk doom ila taaqu ila taannuqi jëm ci taaru bil maakili ci lekk yi laa tubaaluna den ngeen di faale bi man ci ko xam ne huwa moom baalin aji ràpp la wala taxtiroona du ngeen rotal sigral mawti fàttale ko dee bi baalin ci xel seen yoon newu ci attaque annakum ba daanaka yéen daal xanaa liqtum haju ngeen minal himaami ci dee bi simaamin ci kóolare da ngeen kóolarante moom pour na leen fi baax aw xasabtum wala xamal ngeen mina samaane ci jamono xala amaanin ci hóoluloo wala jamono daf leen garanti ne du leen bet aw wasiqtum wala dëgërlu ngeen bi salaamati saati ci mucc ak jëmm aw taaqaqtum wala dëggal ngeen musaalamata haadimi la saati jubóo mabbu bànneex wala haadimi ladaki kii dagg bànneex kallaa déen mbir mi de demee noonu saa a bon na maata tawahamoona li ngeen defe summa topp kallaa jajju leen sawfa a xam kon ñu jàng loolu beneen insha allah indi indi la yow mi nga xam yow mi wane ne yaa ràññeeku yaa xam xaddina yaa xam xam-xam yaa xeewu ci lii ilaa kañ la nag xal wahum yow borom def la hugi sa lënt léegi kañ laa daj jëlun murakkab nga xam yow soxla ku ñu jubal nga te yëguloo ne soxla nga juble nga to ab bii yaa ngi waajal asamba bakkaar wasam maag ngañ yi heure bu nekk sa luy indi bàkkaar rekk la te yëngatu luy indi dar bu yàqu rekk la wa sootee ngay juum alxataa njuumte aljamma gu daa ji bëri da juum juumte lu bëri amaa baax na xanaa birul la kañe àlla xanaay bu ayib ba léegi gisagoo sa ayib amaa an daraka xanaa waadul la asay bu bee jaaw ba léegi waadu woo ci kawar gu waa fi nu si te nekkul ci laay biiram rey bun benn sikk te ku ne xam ne bi jaaw kum feeñ kooko doxaatun ndaw wala sama ka te nekkul sa dégg xasam ma di tax te itam ñiy wax dëgg li ñuy wax ak war nga koo dégg amaa naa daa xanaa xooxut bi ka ci yow almawtu dee xanaa du kenn ku fee xaar dee ah amaa asmaa ka xanaa déggalul la asaw sa baatam xanaa déggoo baatam bi ka nga doon mu dee bàyyi la li nga nekk ka ca nekkoon dee ci xanaa gisoo ko nit fu toll rek nit dee na fa lu mën a ne rek nit dee na ca amaa tax sa xanaa doo ragal minal fawti ci faat xanaa doo ragal lu baax doon xamal njëriñ faat la fata taata soo ko nga limtu mooy nga jàpp ci li gën a wóor wata tam ma nga hitte woo dabaata gu hitte woo jagal fa kam tas daru booy ñàkk faal fi sëx wi ci jamaj def lu dul noonu te sa yoon newu ca wa taxtaaru bari looy daagu xaale mina sëx wi ngir reylu goo reylu watan sob bu bari looy sottee bu mooy looy jeng ila lahwi jëm ci fo ka annal mawta mela mel ni dee maa am ma fa matalewul heure bu nekk yaa ngi wéy ci lu la neex mela ni dee dafa am ñu feeba te yow ci nga bokk waxataama ba kañ la tajaafi ka sag dandu mooy sori gi nga sori lu baax da nekk ci lu la neex wa ibtaau talaafiika ak yéex a sag dabaatal tibaan ay jikko yoo xam ne jamaat boole nañu fii ka ci yow tibaan ay jikko yoo xam ne jamaat boole nañu fii ka ci yow ma yóbban ay ayib yoo xam ne samluhaa seen mbooloo in damma dajene takku na jikko yu doy waa yi nga xam ne tax na lu bëri ci lu bon yaa ngi lu bëri ci lu bon yaa ngi koy wax lu bëri ci lu bon yaa ngi koy xalaat jikko kañ nga koy a saafara isa ak xatta boo mawlaa ka sa borom soo defee loo xam ne suxtu bi moo ci juddoo fama taqalaqu den ngay jàq min saaka ngir loolu du tax mu def ci yow benn sawara bi wayit axfaqa bu sooyee masaaka sa lëggéey su fekkee yëngatu nga ci dara te sottiwut ci sa mbiru àddina te la dayta ngay tàkk minal xam mi ngir njàqare di jàmbat noo ñàkkee temps ak foog nga fañ la lii fañ la laaj waaye nag bu fekkee manqué na nga jaamu moom doo lu ko waral wayin laaxa bu feeñee lakka ñeexal la a naqsu lu ñu boyaade minal asfari ci wurus te nga bég nga tàllal sa kanam su fekkee askoom dikkal na la da ngaa fireekoo fireeku mel ni koo xam ne am na lii dayoo wa in marra bu rombee bi ko ci yow annaasu tàdd suñ koo dee ku ñuy yóbbu taxaamam fe ngay jàq-jàq na ci yàlla ci àddina du dara wala xam ma te de benn jàqare dana ci yow ndax boo ca bàyyee ko ci àddina rek ngay jëmmal boo ko nee àddina rek ci ngay wax moo lay xamal li ngay wax gëmuloo ko to haati yaa ngi mooy annaasiha aji laxe biir albarra ku da aji baax ki lay laajee biir de ku baax hmm. kooku jafe nga koy wan da ngaa wan ne dafa bëri wax hmm. dafa bëgg dégg leen ma hmm. dafa gëm dóori falsafa loolu nga koy wax wataan saafu ngay jëfeñ nga de ku wan jëfeñ watas wërru ngay jeng doo ko bëgg a jege watan xaadu nga def xomatul liman ñaar koo xam ne xar la nax na waaye naxee na na ku nga nangoo déglu waman ak koo xam ne maana fen mu waman ak koo xam ne nam maram bàjji na mu di toxal toxalaanoo ci anam ak yàq ki jara déglu da nga koo def noonu déglu du moyu ki jar da déglu nga jox ko sa nopp bi yaa ngi dox fii hawa nafsi ci bànneexu bakkan rek watax taalu yaa ngi fexe watax taalu yaa ngi fexe alal falsi ci koppar noo dajalee alal rek watan yaa ngi fàtte zulmata ramsi lëndëm ak bàmmeel wala tas kolo te doo fàttaleku maa samma la ca boobale te ëpp nay fàtte al qabru awal manzilin min manazilil axirati imma rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin naar ni su na ma texe tira nga yàlla xiraam ci bàmmeelam lay dalee suma borom nammee ci moom leneen nit nag coonoom ci bàmmeelam lay dalee loo xam ne noonu la demee te doo ko xela walaw laa xasaka te bu la géndee ko alhamdu cër lama taaxa doo du sànneeku bi ka ak yow allah du géndeeku bis boo niroo ne xam nga li nga bëgg bis booba da ngaa jàppee sa bopp ne koo baaxle nga dégloo too lenn lenn xalaatatoo lenn lenn waaw walaw laa xasaka bu la géndee ko alhamdu cër mooy bànneex li neex ci sa bakkan bis boo ko xamee mel ni yomb lama taxa du sànne koo ti bik ka yow allah du gendeeku pour yow kay bis boobu moom bis bu baax la rek wala kunta doo nekk tax tëmm di jàq ital waxtu bu guññi waade nga firi xaale jalaa ala saana jàqare yi subaa boo déggee wax ju ne war a jàqee du tax nga jàqare gannaaw tey kay moom xaalis ba ngi ci loxo bi gannaaw tey kay nanga ma ngi nii noonu mooy sëmbe wala kunta déet ngay nekk Euh, tax tëmm di euh, isa isal waxtu boo xamee ne waade jalaa bu ñu ne ma la sànni tax tëmm de jàq waaye sa tuusri xel si ngay tuur maqaamaat yi fa tuusri ko sa tuusri la del de hmm? fa tuusri kooku lu mu la sa sa tuusri siin dafa am sinu tànk ci bopp bi waaw sa tuusri tuur addama deret la dama waaye du rongañ ci sa aayanta boo jàkkaarlooyee waaye lii ku koy dundee naxu ci àddina ker bu demee ba nga fa ne dëgg rek moo fa ne talaw dana jooy jooy yoo xam ne deret sax sotti waaye du sotti rongañ te tuutri xet si ngay tuur addama deret la dama waaye du rongañ ci sa laa jamaa déet mbooloo hmm. yëqii da fegal nit hmm. fii xasatil jamee hmm. ci dingiréeb dajewaay muy bis penc bis penc ca dingiréeba xamoon mbooloo fii xamu fa njëriñ de wala xaaloon du càggeen nijaay fii xamu fa njëriñ de wala xamoon du càggeen bàyyi tax wa isaa nufixa fi suuri fala anfaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun <coughs> mu ne ka an nii bi ka daanaka maa ngi lay gis ka an nii bi ka ka an bi ka daanaka maa ngi lay gis tan xattu ngay wàcc ila lax di jëm ci bàmmeel wa tan xattu te ngay naju waqat aslamaka te jébbale na la arraftu geño gi mooy say bopp ilaa di yàqa jëm ci fu gën min sa min ji bon bonu pusa nit boo koy xool daanaka dafa mel ni yaa ngi gis ay bokkam yu mu daan dem lante ñu ngi koy jël di ko dugal ci kër goo xam ne tëdd tàlli rek la fay man ndax xam bu xam ak mu jëmm mam doodun lu ñu tàllal la fu naaka ca foofale xam ne dañ fay tàllal jëmm li yastakilahoo ngir na ko lekk hmm. addoodu sax te jëmm jooju sax yi lekk ko la fay xaar hmm. ilaa yen xara ba puno hmm. almoodu bant bi mujj bant yen ja tegoon nekk suuf ba yom see mujj alhans mu yax bi xaram ma de puno yax yi soppeeku suuf waaye am na ñoo wa min ci gannaaw lii falaa budda déet jaar min al xafli ci gaaral mooy bis penji bi ñuy dajale ñëpp wane mbiri ñëpp gannaaw loolu moo ciy topp isan bu xadoo fee siratun boo xam ne gisruhoo pomam mudda tàlla lees na ko alam naari ci safara liman ñaar koo xam ne am ma am na mu buñ deme ba taxaat euh, maanaam ba siraat ci kaw safara xam ne ku baxee ko ci baraw bi pénc bi pour mu dugg àjjana il faut siraat lay mën a jaar romb safara fa kam min mursidin bëri na gindi fii dalla réer na foofa de waaw koo xam ne xam na dëkk saagum ku fa bëgg a dem géographie bi nii la nële la nële la waaye bu demee foofa géographie du gindi nit de ah njub moo fay gindi nit de ah koo xam ne xam nañ géographie lu ne ah la xam nañ faa duggee nañ faa génnee wa min zihin satin bëri na borom ak tedd nga fii dal la na foofale de bëri na koo xam ne bu dar fii bu ëllëgee moom kenn mooy ànd daanu ji safar wa kam min aalimin bëri ku xam kuñ naan xam na zal la tarxeet na foofa waqaala te mu ne alxat bu mbambare mi mooy mbir mu diis mi xat tamma màgg na fa baadir na nga gaaw ayyuhal xumru yow bi le dox li ma jëm ci loo xam ne yax loo dana neexee bi ci moom al murru aji wex ngel la yow gaawal jéem a defar sa ëllëg faqat kaada jegeñ na yéhi di doxa di alxumru dund bi wama aqlanta te bu dee ku xuloo an sa min walis ngañ ndax dem nga ba li gënoon a bëri ci li kattan li newoon li bayra bi newoon li tar bi newoon lépp jeex mu des li gën a tuuti li ànd ak métti waaye ba léegi nga yaatal bëgg a dina loolu bu ko def waaj faqat kaana jegeñ na yéhi di doxaadi alhamru dund bi wama aqlanta te bu dee ku entre min walis nañ wala tarkan bal de jeng ila dahri jëm ci wa in laana doonte nooy na wa in sarra doonte dégloo na lum lu dina jekk nga xaddina jox na la bul xalaat mukk fo doxal la neex fatul faa def la fekk kaman nga mel ni koo xam ne ixtarra nafoo na mu bi avant ci jaani ñàngoor hmm. tànkusu joj dana mu tëfli hmm. asumma toor hmm. mu ne baax na mu ne baax gis nga nooyeeg àddina góore ni mel mu ngi mel ni nooyeeg jaani ñàngoor ak sedd ak jëmm ja teewul mu jar sori de teewul mu jar sori de hiya dunia taqulu bi mil'i fiha mu ne mooy àddina dafay wax ca kaw ne xadaari xadaari même batti wa xot kii mu ne àddina heure mu ngi wax nit ko moyuma hiya dunia taqulu bi mil'i fiha hadari hadari min batti wa xot fala yaxurkumu xusnu ibtisaami su ma muñ mu rafet mi bu man fa qawli mudxikun wal fi'lu mubki mën naa wax ba ñëpp rek waaye su ma defee waxafit na ngay suufee min taraaqiika ci sa kowe kowelu kem ni la gaar ni ci kala la gi mel noonu tax mel ni yaa xëpp nit ñi loolu jaru ko wàcc si nga tolloog nit ñi fa innal mawta naka dee laaqiika aja dajee la ak yow ndax yaa ñëpp a yem ci defe nekk dee rek wasaarir te ajara ñaan la moom dee fii taraqi ka ci say dindi baat te fi muy jaar nit ñi fala lay jaar rek wamaa yan kolu te du dellu gannaaw in hamma bu la hitteele te bu la dikkalee man la koy fanq li am yàgg ñëpp yéen a ci daje wajaanib na ngay teet saaral xat di jeng ak ngir rëylu de bee ka jengal lex nu ne nga def jëmm ndeg yëg ko yëg sa bopp mel ni duula kenn ci nit ñi hmm. loolu bu ko nangu wala tusaayir xaddaka hmm. linnaasi hmm. wala tamsi fil ardi maraha jàng nañ ko ci alquran dégg nga ila saadaka bu la dimbalee aljëddu muur wasumma na ngay nos alaf sa baat in nadda bu ko ñoo te itam booy wax toujours rek nga xam booy xem ak comment la lu màgg texeel na mu man damma ku noskal baatam nit su fekkee kàddum da ko wutal noskal da ko wutal xemalukaay mën naa bañ a ci yu bëri wala fit na ngay yëral xanaaxil bësti walit borom ak jaaxle bëstu mooy tas ak jaaxle soo amee ku nekk ca tas jaaxle la nga man ci xettali ko def ko wasadiqoo te nanga ko dëggal ida nasta bu yullee jaaxleem te itam bu la jàmbatalee jaaxleem bal ko weddi gëm ko rek ndax kenn la ci nit ñi te jaaxle nit ñi lay dal te amoo tegtal ne waxu dëgg waaw te loolu ko baax waa waaw moo tax bu dikkee tawatal la jaaxleem yow loo mën ci sàkku ci defal ko ngir rek gis ne xet li ku jaaxle baax na def ko soo amul dara loo ko jox hmm. nga rafetal kàddu hmm. moo gën nekk de ko wéddi hmm. te lu ko baax a wax ndax ci nit ñi dal te kenn la ci nit ñi te amoo benn mandarga boo xamee ne dalul kon jarul wéddi kon jarul jarul wéddi yow waaw tolloo naa li nga mënul dara nag moom gàccuñ la ci dara soo mënul dara nag moom gàccuñ la ci dara ndax suqali nit wala suqaliku yow nga suqaliku waaye na da ko defee ci anam goo xam ne fa ngay suux mu suqaliku mm-hmm. loolu lor du fa jógee fay toxaloo ci moom dikk ci yow mm-hmm. loolu na xëpp naa def lor moom fañ ko war a dindi mm-hmm. suñ ko mën di dindi ñi ba ko fam ne waaye duñ ko toxal nag loolu moo ci nekk loolu moo ci nekk moo tax xet li ko xat moom baax na waaye ci yoon lay tegee fan yi bañ dem jaamu amala jëf a rasta juraaji rab te itam sa jëf yu rëq rëq say say say aat ak yi noonu del góorgóorlu ci xasanaat yi nga xam ne tu kaffiro sayi aat faqad am laa texe na man koo xam ne ram ma defet la warit na nga dundal man koo xam ne risuhoo dungam in xasta suqeeku na nit bu ko jabana suqee loo man ci fàggul ko dund def ko bi maa ci xanam gu xam ne xam matale na su fekkee ñépp koy defal ah bokkal te ña defal su fekkee fa ngaa defal ñépp ah boole ko ca rek wa ma ak xanam gu xam ne xas sa na soo amee loo xam ne moom moo ca xëy ndax moom la ca loram xaas loola nga defal ko ko ndax moo ca xëy rek gannaaw mën nga wala a bal di jàq xala hmm. naq si ci wàññeeku sa alal hmm. kem li nga dindi ci sa alal ko def ci bokk gi da ko def ci hmm. diina ji muy hiwooy fekk ëllëg loolu bu mu la mét gi bu mu la métti ndax day jëla rek wala te bul xiir xala lëf mi ci dajale te la ko ji ki ko dajale bu dee am jotee dafay dee rek su ko fi baxee nag moom mooy de dañuy saaba wut gi waaye jëriñal lekk gi keneen na koo xam waadi na ngay mooy alxuluqa jikko na ngay noonoo alxuluqa jikko arras la juraa suufe bépp jikko bu suufe na nga ko bañ nit bu jikkoom suufee rek daanaka mënatu la def lenn lenn lu su xeeboo ñu ne jàng na lu ne su xeeboo ñu ne xamante na ku ne waaye nit bu jikkoom baaxul rek maanaam sa doo ko baax mukk wa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu comme ni ko saw kii waxee noonu dégg nga ni ko saw kii waxee dégg nga daan nañ ko wax bu yàgg waaye wax dëgg yàlla man na dégg woowu ci moom dama ko mokk la bu mu koy waxal man dégg woowu ci moom wax dëgg dégg woowu ci moom wax dëgg waxam it na nga baaxoonoo kafaka sa ténk albas la joxe wala tastami te bul déglu alxas la yeddeel ñi la naan bëggoo dara xamoo fu laaj fa nga mën a yàqal ñoo ñëpp jaruñ déglu gannaaw li ngay def nga koy def yàlla lu ne wa nasiha na nga sellal sa ténk xam ne dammi walis dajale wasamit na ngay yóbbal nafsaka sa bakkan alxayra hiw mm-hmm. li ngay hut li ngay xam mm-hmm. da ci yóbbalal sa bopp hiwu halëg mm-hmm. wadaxte na nga bàyyi maa lu xam ne yoo xibu dafay mujjal addayra lor waxa yi te na ngay waajal markaba sayri war waay dox waqafta na ngay ragal min lujjatil yemmi ci lëggëm ndox mi hmm. mu ne bisaa ci lii day wasiitu hmm. la dénkeef ma yàllaa yoo sama àndandoo hmm. mu ne man ma ma doon waxal lii la ma digaloon de waqat bu su tudd ka ban de mel ni koo xam ne baaxa tudd na moom nag dafa xamoon dëgg waxal ma ko xamee naa dëgg ji wax leen ah wax leen naa ko ko texe li fatan ñaal na waay ju xam raax raaxa gont na mu mm-hmm. yetta di roy mm-hmm. bi adab yi ci samay mm-hmm. li mu walaal ku ko dégg te jëfee ko jëne rek la caa jële lii la wax summa xasara topp mu wax rut na wala fi tumb ba mu xam saa ngi dem ci xasabu sa didil afri bu daa ji takk ci takk moom loxol moom mi génne xasa boo xam ñu ko takk ba mu dara asadda takk naa alayhi ci moom jëbaa iral mag ay jàngi tappale hmm. lan kasri waaye du damm hmm. mu ci def bagage yi jàngkat yi xame hmm. fekk pexeem naxe na waaye dammu de mu taaridan di aji gaar min istimaaxati ci mayu fii mi arasil waqaati ci barabu ñàkk kersa gaar lu waayu ñàkk kersa bëgg nay lay nit ñi te du ci am kersa faxtalafu mu wurujee bii ci takk-takk boobu ulaayikal mala am mbooloo moomale mm-hmm. ci la naxee nit ñi mm-hmm. hatta atran ba mu feesal mm-hmm. kummahoo loxoon ba mooy poosam wa mala atte mu feesal su man topp mu wàcc na min a rabwati tukkee ca xurwam ca dooma ja taxawa ca dooma ja ca dooma ja jësiran daa ji dëgg bilaa ci may kontaan ci liñ ko jox xaala wax na arraawi aji solo ji te mooy ne fa jaadal ma ñoo di àndeeg moom min wara yi ci gannaawam xaafiyata rida yi ci pegg làmbaayam la mi dumbu mi ci gannaaw ñoo di faltafata mu daal di geesoo ilayee jëm ci man mustasliman daaji xomar ba ma koo ñoo di rek mu gaaw xëy wa waajahan yi mu jàkkaarloo man musalliman daaji ne yo ba ñoo jàkkaarloo ne salaamaaleykum sëñ way saa ci mbette doom seexunaa suñu góor gi la Abu Zayd ndeke Abu Zayd bi bi ayni ci jëmmam wa may nii ak kanam la fa qultu ma wax la woo ma ne ko kam ba kañ la nag yaa Aba Zayd yaa Abu Zayd afaniinu ka say fannu fil kaydi ci pexe waa tappale yi ak pexe naxe yi moom kañ nga ciy génn foo ko xaab li yan haata ngir na dajee mm-hmm. lakka ñaal la ak saydu rab mm-hmm. te pexe man de jëlee ci nit ñi dara rekk la mm-hmm. wala tam ba faale bi man koo xam ne sama ngàññi na sa yoon ci sa der doo ci génn kañ la lii laa ko wax fa ajaaba mu tontu min xayri istihyaa'in ci lu dul benn kersa mu tontu ma xamu ja benn kersa nag wala fiyaa du jàggeen jéer xam nga benn jéerin nag di xelaat nii ci saa la ma xam waqaal mu ne ma tabassar wa daay lawma wa qul li hal tara al yawma fatan la yaqmuru al qawma mata ma dasturu tamma mu ne tabassar settantala seetal li nga wax bala ngaa wax dee seet li ngay wax waaw tabassar settantala seetal li ngay wax wadax te nga bay allahuma yeddeel da ngaa hmm. danga da ngaa lëggéeyloo sa xel mi hmm. te bañ a dal sama kaw hmm. waqul waxal lii ñaal ma da nga may wax hal tara ndax gis nga al yow ma tey waajoo xam ne la yaqmuru duy nax al qawma nit ñi matta ma dattoo saa soo xamee ne pexeem tamma mat na jamono bi ku fi mu sëdu naxe dafay jamono bi ku mën a nax nit ñi daleen na yenn yi yenn yi affaire yi dox yi ñoo koy wax dabee nañ ci seen la bàyyi looyu waay kuy mën a naxee mën nay nax day mu ngi nax loolu moom la ñëpp di def xaalis ne ko xultu ma wax la wa ñaal ko ne ko bu mu daan kori la ka ñaal mooy boofuma la yow yaa tay xam naari yow magam safara bi wa saamilatal xaat daa ji xenu gàcce saa mi mooy gëlëm gi ñuy suñu bagage bu ñuy dem mislu ka déet sa kem fiitu laa wati xalaaniyatika ci rafet ak sa saayir sa jëmm jooy hiwe jéeg sa kàddu goo fasaaxa gi wa si niyatika ak bon sa héene ak sa xalaat yu bon yi niruwuloo ci lenn mislu rawsin ndare kem walla illaa rawsin mm. ndare dem neefare fama mm. masalu ka def sa kem mm. fi tulawati ala niyatika ci rafet ak sa saahir wa xubsu niyatika ak bon ak sa yéene rawsin ndare de meloo neefare walla de kem neefare mufaddalin wala wuñ xoobee xaalis aw kanifin walla kabine duus mubayadin wala wuñ lafa ba mu weex gis nga ni sa saahir yi wee sa kàddu jubee ko mm-hmm. te sa xelaat ak sa jëfin bonee ko mm-hmm. ni nga mel mm-hmm. yaa ngi mel ni neefare woo xam ne dañoo jël xaalis xob xobee ko xaalis ci kaw boo xoolee xoog ne dara la bu tojee da xam ne du dara de wala kamine duus boo xam ne fañ ko la sa ba soo ko séenee xamam du xamam dëkk ca soo génn yaa ngi soo duggee yàkkamtee génn rek ne ko dégg sa wax sa wax ji hmm. gis sa jëmm ji hmm. ba tax mu ne waajaa ngi na hmm. nga <laughs> bu la xamee rek génn ci yow la xamee rek génn ci yow seetlu bu baax a baax li rek mën a tudd xaar da nga am du ko yàgg na tax du ma tafa sax naa booba lañ <laughs> mu ne booba la lañ tàggaloo fantalax ko ma jublu ma boyu saata yëmini ci wetu ndeyjoor ma xaw ndeyjoor wantalax ko ma boyu saata simaali ci wetu càmmoñ boobu daal lañ joxante gannaaw di gën de sore hante wanaa wax ko ma jublu ma habbal jënoo waayu galawu jënoo wanaa waxa moom mu jublu ma habbal simaalu waayu galawu simaal baax na boobu la ma xamu bi jeex baax thank you